Euh, vraiment euh, mën nañu ne lu euh, solo bu mu am dafa jéggi dayoo te ñu gis ne mu am ay résultat wala réussite totale depuis ci ndorteel ba parce que tamit lu mel ni doo jóg-jóg rek dugg ci ci après signature convention yi MOU yi euh, madame le ministre Zahra Iyane bu ñu fi ñëw ci ndorteel euh, béréb bi melul woon yi vraiment <laughs> mu bindoo woon euh, ñu ñëw toog ak ak autorité ñi nga xam ne ne ñoom ñoo ñoo ŋànk expo bi ñu waxtaan ñoom tamit ku nekk ñu échanger ku nekk proposé li ngay li ngay war a proposé ñoom tamit ñu am ci gis-gis bu yaatu ba yàlla def euh, euh, deuxième euh, mën nañu ne voyage bi technicien yi ak ñu mu àndal ak équipe yu mu àndal ñu diagnostiqué situation bi commencé liggéey vraiment ñuy jokkoo ak ambassade bi di vraiment di ànd ak ñoom ci lépp ci réunion yi souvent ci daje yi ba yàlla def avant presque ouverture euh, expo bi mooy dernier voyage euh, vraiment ñu euh, ñu gis nañu ci avancement bu baax donc ay yeneen proposition tamit génn ci ak participation Sénégal te Sénégal tamit jël engagement au niveau autorité yi état bi ñu di ñu def ci taxawaay bu rafet yu fexe ba indi fi loo xam ne ne mën na am néew na réew bu ko def mooy indi ay plante ay plante normale yoo xam ne ne sept tonnes tuutiwul euh, lu ko boo ko comparé ak ñeneen participants yi fi nekk euh, ñoo xam ne ay image la yor ak yu mel noonu donc nag euh, Qatar yi rafetlu ko loolu wone na ko sax ci ci ci nu ñuy doxalee même actuellement madame Zahra luñ ko tàbb luñ luñ ko tàbb jiitu euh, délégué yi loolu vraiment lu fi fierté la pour Sénégal euh, te ñu dem ba ubbi euh, ubbi tamit kii bi nu mu ti suñu pavillon bi jour buñ ko ubbi le 6 mois mois bi bi ñu bi ñu jàll Abdoul Karim le ministre Abdoul Karim Fofana moom ci boppam moo ñëw fekkee ko donc uuf ngir mi mu nekk tamit jour boo xam ne ne bu am solo. Euh, Qatar yi tamit le délégué général bi mooy commissaire général bi Badara Dafa ci boppam bi ngeen jël tout à moom moo ko moo ko moo ko moo ko teewoon ak yeneen autorité euh, ñu gis ne ne suñu journée national xam naa ne foofu pour rek euh, gàttal wax ji def ko briefing gis nga nu mu nu mu bindoo président ci boppam moom moo déplacé wu ñëw fekkee ko donc lu ko jiitu vraiment Euh, ASEPEX fi jiital euh, madame Zahra euh, dem ba Riyad taseeg moom foofu lu jiitu loolu gisee nag moom Sénégal waxtaan ci ak moom dem ba Riyad ñu confirmer ko yàlla def tamit loolu tombe ak invitation bi nga xam ne ne Sonatel Cheikh Tamim Ben Hamed Al Thani moo ko invité président ci forum du Doha forum économique bu Doha mu nekk nag ñaari événement yu am solo donc bu mu accès ci ci matinée bi gis ngeen Euh, ay yëngatu am ci section Nialtès euh, fekkee forum bi euh, géré benn mu jiitu benn panel et puis tasek ak yenn ay ay structures yu am solo QIA e, Qatar Investment Authority mu gis ak ñoom giseek ak fonds Qatar yi gisee Qatar Airways waaw yooyu nag ñu waxtaan luy diggante ñaari réew yi ñu ko gën a mën a rattaxale ni ñu gën a mën a jàppalante donc après midi bi gis ngeen nu mu mbir mi lu am solo la te ñëpp kontaan ci ñëpp euh, vraiment félicité ci Sénégal parce que nekkul lu tuuti parce que déplacement président ñëw ba euh, fekkee li lii nag liñ ciy jàngat mooy échange la surtout horticulture réew mi désert la ñu ngi góorgóorlu mais soxla nañu am expertise jàngat ci yeneen euh, ci yeneen réew yi yëngatu ci lu mel na ci affaire mbay ay horticulture ñu gis ne ne euh, Sénégal gën ci ràññee parce que lu ko tax moo lu ñu gis loo xam ne ne mun ko ko mun nga ci du euh, mun nga ci teg loxo du ay du ay image donc nag loolu euh, même am na ay structures yoo xam ne ne ñu ngi laaj naka la ñu mën a doxalee wàllu save de plante yi nuñ ko fi nuñ ko fi war a mën a ñu leen ci mën a jàppale pour ñu mën ko fi def ñoo ñoo ñoo euh, est-ce que dina fi dund wala parce que fi day tàng réew buy tàng loolu la euh, xam naa ne loolu dina nekk bunt ñu jublu ci Sénégal euh, jël expertise boobu jël sénégal yi tamit njëriñoo ci ñoom waaw donc nag loolu lu ci am solo la donc structure boobu ma doon wax mooy Hassad Food Hassad Food boobu structure bu am solo la dara taxu jóg lu dul affaire mbay et presque moo représenté. qui euh, ça veut mooy mooy réew mi lépp ci li jëm ci agriculture wala horticulture horticulture waaw donc nag euh, ay waxtaan a ngi foofu yaakaar nañu ne du yàgg avant même balaa expo bi di jeex dañ def déplacement dem Sénégal te ñu ngi jéem a programmer dajek ak ñi fi nekk déjà indi indi li wala am ci expérience pour ñu daje ci ak ñoom euh, ñoom tamit nekki noonu loo gis rek ñaari parti la B2B am na loo xam ne ni mun nañ ko fi jëlee ñun tam am na am na am na lu ñu mën a jëlee Sénégal indi ko fi donc yooyu yëpp te avantage beneen bi ci am euh, mooy que li dafa ubbi opportunité euh, boo xam ne ni lu ñuy tuddee euh, diplomatie économique waaw donc nag loolu tax na ñu ngi gëstu di seet parce que Sénégal dafa sori donc dégg dëgg lañ ci am mais léegi nag par curiosité dina dina leen tax gën a wuti Sénégal donc nag ci lu gàtt euh, mooy mooy mooy li ma bëggoon a wax di di di ndokkeel suñu bopp tamit di ndokkeel suñu bopp di ndokkeel tamit ACPEX euh, forum bi tamit am na mais xam naa ne defaat ko bu amoon mooy gën euh, dajale Qatar yëpp parce que temps yi ak xat-xataay bi ak événement yi donc nag buñ ko defaatee di ñi ñi ñi ñi ŋànk affaire bi Sénégal ñëw fii et puis Qatar yi ñu gën a mën a toog def ay